bonjour ou bonsoir ça dépend l'heure où vous nous suivez sur Live TV baatu xol bi seen émission face Paco comme ni koy defee saa su nekk rek invité ndaanaan bu bépp ndaanaan boo xam ne rek ñu ngi lay bàyyi xel baatu xol bi ngeen mën a seetaan seen xol di fees tey daa am ku ma invité koo xam ne bu waxee rek di xam kan la waaye tamit dama koy présenté bàyyi ko nag mu nuyu ñi nga xam ne Sénégalais bébé lay jaar nañ la maa lay delloo di nuyu waa Dakar TV yëpp di leen wax ni bég naa di nuyu fans yëpp di nuyu Sénégal. macha allah macha laa euh, laa dalal sama plateau fii Dakar live ah face à comme ni ma leen ko waxee sama njëlbeen wax euh, tey ñu nar a waxtaanee ci carrière musicale am waaye tamit waxtaanee ci li nga xam ne mooy xew-xewu jamono fii ci Sénégal waxtaanee ci lu bëree bëree bëri euh, bébé bëggoon naa nga ñëw sa carrière musicale lan moo la dugal ci musique. waaw loolu nag mhm. ma njëkk Sénégal 2002 coupe du monde Sénégal 2002 ba léegi maa ngi si aar mais fecc laa doon def. ok daan ànd ak Papa Ndiaye fecc ay crib yu bëri ay xuur daan na seen si di jaami borom. ay mën ab dogo Abdouraas Abdouraas waaw maa ñoo nekk xale ndaw yi. def kirip yu bëree bëri gars yëpp bàyyi ñu xel. Mhm. daanaka ba ni ba may def loolu daal boobu télé yu bëri xewul lu bëri xewul. te boobu gars yi bàyyi nañu xel. mais mhm. ba nu duggee si côté deux mille mhm. boobu laa commencé way ok si nga commencé nag. di woy 2008 laa si laa commencé woy. Mhm. daanaa sax dem prince yi dem si xew yi di woy yooyu noonu. mais 2008 daal si laa jël yëpp à sérieux. ni mhm. damay bàyyi fecc bi. concentré euh, ngay fecc si xale ba 2008 nga ne da ngay bàyyi fecc bi dem si musique bi lu tax loolu. li tax loolu dama xam ne musique bi am naa si cër te am naa si wàll. Mhm. li tax am naa si cër am naa si wàll tey jii. dama doon toog fenn nii suñu biir kër ni der gars yi ni ma yow kat laay da ngaa war a bàyyi fecc bi sama papa ak sama yaay yëpp ndax say rakk ñu ngi fecc nga bàyyi leen fecc yow nga dem beneen côté xanaa si këru ngéwël nga juddoo kër ngéwël la suñu kër ñëpp ay artiste la sama yaay ak sama papa ak ñëpp ba ñëwee suñu kër daal da ngay xawaare ba doyal ok loolu waral daal ma jël wàllu way bi mhm. ni lii am naa si cër ba pare dem gëstu ji ko dem jàngi ji ko ndax loo nekk bëgg tamit gars yi bàyyi la si xel mhm. ëllëg doo si rus da nga koy jàng gëstu si ok may def traditionnel. Mhm. di ànd ak ay jigéen di leen awu. ok nit woo ma sumb ma dem woyal ko sumb yu bëri daal. ba tey jii ba tey jii mais ci boobu kon jot nga ànd ak yenn artiste nekk ci ginnaaw di leen awul. jot naa si aw ñu bëree bëri bëri. da nga doon gis par ma dem benn programme sax Kiné fekk ma fa. Kiné Lam suñu yaay Kiné Lam sama yaay Kiné fekk ma fa di woy kenn ko aw ma ñëw awu ko ba si Alsane Mbaye Alsane Mbaye xam fu ñu woyee dafa metti ñëw ñëw way gaa yëpp daw micro ma jël micro bi aw mu ne ma avant ma lay seet da nga may wax fan nga dëkk kan mooy sa kan mooy sa papa. Alsane Mbaye Alsane Mbaye mu wax la loolu macha allah 2008 euh, ñu ngi ci 2021 yaa ngi ci sa carrière musicale yaa ngi ci nekk di def di jéem ñaata produit nga defagum. mun naa ni daanaka benn laa defagum. benn nga defagum benn single laa def. Mhm. clip ko def si xaalis bari nag. Mhm. ànd si ak Matar Gentleman production. ok Matar Waly ah waaw mu nekk sama xarit. ok nekk nit ku gore ñu si liggéey. te ñu ngi si yoon bi. ñu ngi si yoon bi mais ci 2008 bi jot nga def yenn spectacle jot nga joué si ay programme fii ci Sénégal. waaw jot naa si joué programme yu bari ndax daanaka géejewaay fee daanaka banlieue sax laay wax. lu fa xew dan may woo du ma toog xanaa à part mbas mi sax laay wax mbas mbas may tax man toog. mais du ma toog trois jours yoo xam ne du ma woo jàkkaarloo ma yóbbu sama orchestre. géejewaay quoi géejewaay ah da nga am sa orchestre yëmb damay am sama orchestre damay see jàkkaarloo yi soirée doon waaj Serrano. far mbas mi ñëw far mbas mi ñëw mais yàlla baax na mbas mi dina fi dina fi génn mais ci 2008 yow yaa ngi dugg ci musique 2008 laa nga commencé def woy parce que 2002 yaa ngi fecc yàgg mhm. boobu man xaw moo ne sax dinaa toog xaar ba heure boobu di soog a génnee sa sa lu tax lan la loolu li tax loolu yëf doo tëb rek génn ah, génn 2021 di toj dëkk waaw ñooñu parents yi nga génn génn boo xam ne lu baax. nga génn ñu ne la orso la nga dugal bii ba zibi ñu ne la orso la. yow loolu nga loolu parents yi ne yow. togg bu ñorul quoi togg boo xam ne ñoragul. ok doomu aadama da nga da nga bu dee artiste nga da ngay ba mun. Mhm. suñu maman ki ne la maa ngi koy nuyu maa ngi seetaan barki dem wax la am solo. ok si saa artiste ñu bëri xamuñu mbaar mbëpp mbëfar jolleek yëpp xamuñu ko ñoom dañuy woy nii rek ay soxla ay bër loolu la ñuy woy mais mbaar mbëpp jolli luñ bëgg a wax foofu noonu ci lan ci musique bi mbaar mbëpp mbëfër mooy nga xam fi ngay yëkkatee xam fi ngay wàccee wàccee ak fi ngay duggee xam fi booy awu booy awu jigéen sax mhm. mu yor beneen baat ugi mhm. nga mun kaa base comme muy woy bu sew nga woy baat bu diis ngay awu koo xam ne yéen ñaar yéen a bokk baat nga changé yow sa mélodie ok ok ñu bëri xamuñu ko te nga eh, gis ku ñëw di woy mel ni ku nekk biir néegam di foo ñu bëri micro moo tax ñuy way moo tax boobu ba léegi ma ni taj mhm. xam ni instant yi nii ku ne mun nga nekk sa biir kër julli jiite sa bopp waaw mais boo demee sa jumaa ji wala sa jàkka ja ilimaan a jiite si ginnaaw ngeen di mais bébé laa yow est-ce que nekkul wax ji moo neex nii ngay wax nii rek parce que soo aayoon 2008 ba 2021 xale juddu na fi bay doxi soxlaam a bokk technicien loolu yëpp am na mais man yaakaar naa ni fu ma dem fekk Youssou Ndour sax bu toogoon kenn la am toog ñëpp toog ñu mën a wàññi bu ma nee der da ma duñ ma wax nangam xam ne la ngay wax mm. lan ngay xaar maanaam yow da nga bëgg a wax ni kon euh, sa talent romb na xam nga ne yow am nga talent bi tu es pétri quoi loolu moom boo koy wax mi ngi mel ni nga naan musle saw ba xam lawbe la. saa nag wul nga. wala ba xam day takk ay fer ak ay yooyu. ndax talent bi moom mi ngi si man. ok li tax talent bi mi ngi si man man artistes yu bari danoo jaar si man. artistes yu bari danoo jaar si man artistes danoo jaar si man gëstu si man jàng si man ba mun dem mais duñ toog fenn ni laay. ndax dañuy tageen bu dine laay rek laayee siiw ñoom dañuy wàcc te loolu wax comme lu nongu loo waxoon gars yu bëri ci guy mooy guy gu mag gi si moom lañ jàngee woy quoi jaare ci moom lu waa ji di doon woy si nongu loo di ko wax dëgg bu wér kéeng loolu nga wax quoi loolu nekkul a wax sax moom moo am donc la déggee sa biir wax da nga bëgg wax ne na booy yu bëri yoo xam ne jot nañ jaar si yow booy yu bëri kon na booy tojoguñu xanaa Sénégal franchement ah ñenn ñi nag ñi ngi si jàkkaarloo mais ñenn ñi ngi toj Sénégal toj Sénégal ndax toj Sénégal yomb na léegi da nga def benn affaire nit ñi bëgg ko di ko sinab yaa ngi toj ñu la éviter télé parce te musique boobu yaakaar naa ko jàng yow Bébé yow bu fekkoon sa woy la woy 2008 ba léegi kon man kay dégg naa la yaa ngi toj Sénégal tamit waaw bari na est-ce xam nga ni am na ñoo xam ne ñoo ma gën a garaaw fuuf te boo demee ci régions yi nga leen di gis. waaw loolu am na te ban commencé woy ay quatre-vingt-dix la. mais yow booy yi ngay wax ne dañoo jël sa woy loolu man mënu ma ko gëm te yan booy fii Sénégal la nga xam. booy yu bari man damaa nekk nit koo xam du ma tëkk. mi ngi mel ni ngay jékki-jékki benn mbër naan ay kii laa kii a bëreel fekk yi naan nekkul ci plein droit doo tëkk mais fii face à man damay laaj ci lépp ci jekk ak teraanga mi day leer émission bi mooy laaj loolu noonu mais soo ma waxee man peut-être aussi nit ñuy déglu dinañ xam dinañ juger mais ñen ñi nga jàngal wooyu ñu xam ne Sénégal comme kan ak kan kan man damaa yor jikko joo xam ne mhm. damaa gëm yàlla dëgg la ba pare nekk jullit fii ñëpp a gëm yàlla man mi sax dama gëm yàlla am na ñoo xam ne gëmuñu ah. ne ñu ngi si <laughs> moo dem ba léegi gëm yàlla bu bari sax amatu si waaw sow bis nag moo demee noonu mais waxal waxal man jikko yi rëbbkat laa yor man samay fees laa yor man mu man damay visé te damay jam da jam ñu si mel ni ñu baree bari ba si mm. Ibra Naajo Ibrahima Naajo doomu parcelle. Ibrahima Naajo waaw. doomu parcelle mi lembe jamono mii. waaw kay non yaa Ibrahima Naajo bokkoo leen yoon. ah yoon. moo la romb na la autoroute à péage bu ñëwee ba si digg bi romb yi a si man maa jàngal way man maa def artiste ba may ànd ak moom di dem seen kër yaayam da ko doon làkk naan ko doo fi doonee artiste 2012. da ko doon làkk da ko doo fi doonee ànd ak diw ñi ay artiste lan te doo fi doonee artiste bëgg ma faama. moom naajo quoi. ma yóbbu ko ba Kébémer woy ba muy jooy. ah nekk si programme di woy ba muy jooy moom naan ma li nga mun laa bëgg a mun nan laa def ba ko bu may bu sumb amee bu ma demee sumb jox ko micro mu commencé way ba gayndee commencé ñëw ma jël micro bi way mu aw. mais sa waay. yaa may dégg. sa waay yow nga nekk mu doon àndal samay rakk waa Ballaga Boys. ak booy fecce waale. waaw xam naa xam naa doon àndal di yor góngooy. ah ñuy sa rakk lañ. samay rakk lañ ñoo baay. ok suñu kër kër aar la. bëri na ay bongo maan yu bari suñu kër lañ doon ne. mais attends ñu wax ci kaaw Ibrahima Naajo parce que Ibrahima Naajo macha allah Sénégal nit ñaa ngi koy bàyyi xel te mu ngi def liggéey bu am solo quoi qu'on dise euh, fierté la si waa parcelle fierté la ci Sénégal mais li nga wax ni dafa am solo nga ne yow yaa ko jàngal woy te yàgg naa euh, di la xool di am mbégte di sawar di xool si yow naan da nga ko jàngal mais loolu noonu euh, Bébé Laye est sa nekkul ay CMA yoo teg nii rek pour nit ñi bàyyi la xel tamit. bu dee CMA yu ma teg la sama carrière yàlla bu mu àgg. wala sama yaay gi moom bëgg a teral mhm. wala sama soxna mhm. yàlla bu ma leen teral mais léegi yow yaa jàngal Irbou Nadio woy Irbou Nadio mu ngi ci kaw yow yaa ngi ci ginnaaw loolu tamit jaaxal na ma man gëw ma ne maa ngi si ginnaaw xam nga moo tax gëw ma ne maa ngi si ginnaaw mhm. aar bi xool ñu ku njëkk a départ ku njëkk a yegg la ni xool te moom yeggagul fenn ndax amagul dara demagul garantie te demagul Bercy demagul fenn mun naa xëy suba man dem Bercy mais moom lu tax du la dem am disque d'or loo xam ne gars yi amaguñ ko suñu papa yekk am dëgg la man sama talent ma koy nat dama koy nat si ñoom Youssou Ndour ñoom Ismaïla Lo man seen jamono laa waaye nag gëm sa bopp seen jamono laa nekk seen jamono 2002 boobu booy yëpp feeñaguñ télé macha allah mais mais laay laay xam nga bébé laay yow bébé nga ci tur bi waaye doo bébé ci ci ci ci ci bopp bi d'après li nga wax ni bu fekkee ne yaa jàngal Ibro Naajo moom woy moom doo doo doo bébé waaye Ibro Naajo moomu tey nga jàngal woy mais lu tax si kon yéen ñaar moom du ma lay gis bokk ci ay programme parce que damay dem ci ay programme Ibro Naajo damaa nekk nit koo xam ni tey di man ku ma yéeg ma yéeg la du mën a yéeguma nag mhm. ndax mi ngi dund aara maa ngi dund sama aara ndax moom heure bu ko bu ko nit ñi soxlaa muy zee mhm. man am na ñu ma soxla may zee ndax kenn ku ne yaa ngi sa rëkk di ko toj ku nekk sa wërsëg ngay laaj dan may woo fii ba ay ndar ay Kébémer fépp ba gaan bi may dem di zee mhm. yóbbu sama orchestre di zee nit ñi ma am na dëkk yoo xam ne boo fa demee nga naan waale moo fa ñëw wala Youssou Ndour moo fa ñëw day dëkk ba day fees dell barki Seydina Muhammad ngir ngir rek gis sama jëmm kon loolu dama koy sante yàlla mais Ibrahima Naajo du ma ne mu ngi si kaw du ma ne mu ngi si suuf mi ngi góorgóorlu di liggéey mais man ak moom du combat li tax man man ak moom du combat moom da doon topp sama ginnaaw te par exemple nit dina topp sa ginnaaw sax dàq laa way mais man dàq gumaa way ndax wayagul loo xam ne man jàngee na ko sax man lu ma ko jàngal yëpp daanaka moom génnewu ko ndax mënugu ko ndax dañuy jàng comme ngay jàng daara mën a goo bisimilaay sax nga ber sa bopp nga ber sa bu fekkee tamit ber na daaraam bu dee yaa ko jàngal comme li nga wax irba irba mi ngi daw vitesse yow yaa ngi yaa ngi ah. wàññeeku lu tawut a xam dafa yàggul. Mm. la moo tax la moo tax dafa yàggul. Mm-hmm. si kanam tuuti dinañ gis beneen la yow bu dee 2008 ba tey yow benn benn single nga génnee Iba peut-être mun naa ne ay 2015 2017 xaw ma la ko sénégalais xam xaw ma 2018 2018. si la dugg si aar sax voilà si la ko man si ko soog a découvrir ci yenn soirée yi mu def. Euh, donc yow kon mooy loolu yow yow Iba Naajo rek kon nga jàngal way nga bëgg wax nag booy yu bëri yàlla jàngal way dafay jaaxal. ni booy yu ma ñëw teg la si yoon ni la ni ngay woyee dafa metti del def nangam ak nangam nit ñi di la béggee léegi yow ci mooy yëf kon Iba Naajo amaan na yeneen morom yoo jàngal amaan na yeneen moromam yu bëree bëri bëri man booy mu mujjee jàngal woy rek waaw tey jii ngeen baal ma si kàddu du morom Iba Naajo waaw booy mu mujjee jàngal woy mhm. tey bu toogoon Iba Naajo ñu may du combat Jayla yaa ngi koy dégg Jayla ni Jayla Jayla bu Jayla tam woy sama dammeel waaw rocktil rocktil musique waaw non Jayla xam naa ko sama xarit la sama doom bu nekkee xale bu ndaw la ko yaay indi si man xam ma yaay woykat te dalaa bëgg fu ma dem di ko yóbbaale may aw. ok yow la doon àndal di la aw quoi man doon àndal di ma aw. di jouer première partie. moom tamit yaa ko tette si woy bi quoi ba fii a ngi déggante. Dieyla ñu ngi ah, te moom man man dama kaa bëggal sama bopp moom mu bëgg ma. xale bu mën woy la waaw ñoo bokk benn koñ. boobu duñ toog ñaari fan ñetti fan yu ñu déggante wala yu wala yu ah, gisante ah c'est bien waaw di ko ñaanal yoonam bi mu àggal merci mais laay sa mun wëy yaa ngi wëy macha allah benn single nga def laay est-ce que tamit jotul nga xool kon yow sa entourage aussi wala da nga nekkul ci label bu am doole pour nit ñi gën la mën a xam parce que li nga wax nii ci wekkee yow yaa ko def euh, mbër dëgg nga te mbër dëgg moo lay song non nekkul question sax ay entourage ak ay label mm-hmm. ndax man ba bokkee label yàggul ok mosoo am. mosuma bëgg ay label sax. ndax dama am liggéey bu ma gëmoon. Mhm. label bu ne woo na ma. Mhm. mais ki li tax ma dem sax bokk label muy gentleman production. Mhm. man ak moom ay morom lan jabaram bëgg ma ay waa këram bëgg ma ñu yàgg liggéey man ak moom. mu may tëggal di ma génn may dem ay almadi yëpp di fas ay soirée. jantal Matar Matar Wali je ah. moom am na labelam dëgg la label bu mag a bu mag a mag la quoi qu'on dise tamit label mag a mag la mais tey ak sa talent fi mu am na yeneen label yi fi nekk pourquoi pas demoo ci label yooyu wala yow da nga dem ci label yooyu ñu tëjal la porte bi non kenn tëjal ma bi ndax xam la moo tax kenn tëjal ma porte bi hmm. bu ma tëjaloon porte bi doon ma woo ban label moo la woo label bu ne woo na ma comme ban léegi-léegi wax naa leen lan waa suba teel waaye bay yow pam waaye yow suba teel lan la lay wooye ku génne benn single suba la na mënoon naa bañ a génne benn single man lu ma yor si ay si ay lu ma la single mais ah, nangu naa lu ma yor si ay dafa bari nangu naa mais suba na ñoo xam ne génne nañ fii génne nañ fi ay single sama samay la la dégg nga wallaay comprendre ma nag waa suba teel dañ maa woo wax lu ne man leen après dinañ jokkoo pour nga ñëw ci label bi pour nga ñëw si label bi léegi lu tax dama li tax dew ma gis ma fa sama avantage ok ah, moo tax gis ma fa sama avantage ah, man damay dundal musique du ma bëgg luy rey musique. mais suba teel day dundal musique parce que am na ay jeunes yu bëri yu fa nekk. mun nay dundal musique ñoom ñëpp ñu ngi fa ku ne di góorgóorlu am say nit di tëgg muy neex mais man bëgg man bëgguma sama yoon man man sama bopp dama kaa def concurrent concurrent ak Youssou Ndour am nga mu fa mu nekk fan fa laa bëgg a nekk ndax man Youssou Ndour moo tax ma bëgg a way ak Ndiaga Mbaye eh, ndeysaan bu gàmmu Tiwaawan jotee mhm. da may fekk kër kër Ndiaga Mbaye mhm. mel ni man mel ni man maay sëtam direct ay sëtam yëpp a ngi fi mais bu ma ñëwul kenn du xawaare xale mi génn ma la ñuy xaar lal basañe këram Tiwaawan ah këram Tiwaawan. macha allah sa guddi gàmm man maay xawaare ñëpp ñëw toog maa ngi leen nuyu di nuyu sama yaay Aïda Mbaye macha allah euh, waaye léegi nag dañuy waxtaanee ci li nga xam ne mooy showbiz laataa ñuy dem say projet yi ngay waajal ah. euh, en tant que artiste nga nekk ci showbiz bi wax nga ko léegi euh, labelu Subatel woo nañ la mais gisoo fa sa bopp moo tax demoo yaa ngi liggéey ak ki nga xam ne mooy Matar Wali macha allah ñu lay ñaanal tamit yàlla dimbale la ci li nga sumb wax nga léegi jàngal nga ay booy woy am nga ñoo xam ne ñaa tax tey ñu bëri xam leen mais showbiz fi mu toll nii Sénégal coow lu bëri peut être mun naa jël rek benn exemple ci diggante li nga xam ne moo nekk waa Subatel euh, seen artiste di Sidi Diop ak ki nga xam ne mooy waa euh, euh, Faramaren musique ki nga xam ne mooy Wally Seck nit ñi coow ñu ngi ciy coow dégguñ nag gaa Wally wax dégguñ Sidi Diop wax mais nit ñu bëri ngi ciy wax yow loolu li sa xalaat ci loolu. lu si sama xalaat mooy comme soo bis wax nga ko léegi nee nga dafa garaaw. waaw dafa garaaw moom. te aar aar alal ak yëfu jënd la. tey jii ñu bëri dañuy réere mbir. Mm-hmm. li tax ñuy réere mbir affaire du benn mhm. du benn waali yoonam la nekk si dëgg nekk yoonam dëgg la man ma nekk sama yoon ba Ibra Naaje mi ngi may tëkkaleel nii mhm. te du combat moom tamit si yoonam la nekk waaye combat la nag garaawul mën na doon combat mais kenn ku ne sa yëg yéeg ñeen xam nga xam artistes yu bari duñ xuloo xam ne ñoo xuloo fan si mas léegi yenn mhm. artistes yi nga xam ne seen xel akul fenn fii dañuy kuul seen saay xam nga la toog seen toog léegi ñenn ñi dañ naan kii waxul kii waxul fi fekk xulawul man tey jii label bu ma nekk man duñ ma wax loolu lu ma bëggut a wax de. duñ ma wax lu ma bëggut a wax def arme wu def ma pisale chargé ma ay bal di ma tiire. léegi loo bëgg a wax foofu noonu yow. ndax da ngay gis nga nag da ngay nekk benn label gars yi gars yi gars yi di la di la xeexal. léegi Wally Seck di la ba léegi waxul. si sama grand la waaw maa ngi koy gërëm di ko sant. ndax lu mu dee dee samay rakk si moom la nekk di ko feccal waaw même bu dee benn pepp ceeb sax mos naa kaa lekk si alalam mm-hmm. ndax yàgg naa jox samay rakk mm-hmm. ay xar mm-hmm. ñu ñëw kër di ko indi dëgg la maa ko siy sant di ko gërëm sëñ Sow dara yàlla na jàmm yàgg si Diop sama nit la mhm. man ak moom ñoo bokk géejawaay dëgg la li tax ñu bokk Sidi Sidi Diop dafa mënoon gis ma may dox mhm. di dem programme bongo ànd ak ay nit ñu yor mu daw jéggi tali sukk ni ma ngir jëmmi Seydina ko benn ñing laa soxla benn ñing benn ñing pour ma woy tuuti rek du kontaan mu ne bu ma gisee bu ma woyul tuuti moom du kontaan boobu ma ànd ak Cheikh Gueye rakku Ndeye Gueye ok ni ma benn ñing laa soxla rek pour sama xol sedd ma kay defal buy see jàkkaarloo ma ñëw man bu may see jàkkaarloo moom ma ñëw boobu moom mi ngi tudd Sidi waaye. mais kon sama nit sama xarit la man ak moom ay xarit lan man déggoo ma la du ci côté la bu baax da nga bëgg a wax ne affaire bi du ci Sidi te fans ñoom dañoo jékki-jékki gis mbir mi. waaw fans danoo dañoo jékki-jékki gis mbir yi kon nan xoolaat seen biir comme ñeen ñu ni àndal. waaw ah, kon loolu d'accord waaw kay waaw mais fans yi moom defuñ dara fans yi moom yéen yéenay teg si waa seen i plan yéen artistes yi ngeen baal ma ci terme mais souvent da ngeen teg sax seen i deal pour bëgg a siiw rek gis nañ ko fi fii la na amul ne ay célébrité nekk Sénégal nañu bàyyi seemaa yi ñuy teg ci kaw sénégalais yi ñun instant bi dañoo xiif amul ñu lekk nañ wax si loolu xool dëkk bi lu ko avancé loo moo gën ngeen teg ay deal ci parce que man man benn artiste mënumaa dóor man man nag ëmm ay fans man ay xarit laa am na man doomi lawbe laa mais am nga fans tey jii bu ma woote woon grand théâtre suba gëm naa day fees ndax lawbe kenn dàqu leen sot waaw loobe moom loolu yàgg na si ñoom ñu feesal grand théâtre ba mu fees ba keneen ku yéex fan loobe moom moo nekkoon woykatu loobe pourtant instant bi loobe amatuñ benn star ci woy bi de maa ngi nii jeex na tàkk ko jeex na Sorano laa doon waaj te ñoom da nga ko naroon duy ba jënd tikke yi doon waajal album barki Sëñ Fallu yow kon de saa léegi tey moom xam naa nga kon nekkul question damaa yéex ak tournée internationale dama moom a jiitoo kii moo ne si kaw comprendre naa comprendre loolu daw ba tëb xal des nar a joggi dëgg la te boo joggi wut ak lakk lakk c'est vrai kon ñoom nan fexee joggi balaa may ñëw di sote te boo sotee damay ragal nga tëj ah. man bu ma sotee man du ma joggi xam nga joggi mooy nii mais ñëw rek tëb xam nga lu gën a garaaw mooy jour boo xam ne toog na cinq ans fubalul chaque koy teg ci baal bu bu duggee kenn du fubal ndax day def ko xarit Pape Bissap ba muy fubal la woon benn tali fii seen koñ foofu noonu moom dañ ko doon teg ban boobu tout tànk la mais depuis ba mu duggee ça y loolu moom bari na peut saa nga gis ñu naan jour bi euh, projet parce que lu neex du doy te léegi émission bi jeex euh, mbas mi dafa dafa leen yàqal lu bëree bëri parce que yéen ay borom kër ngeen te seen baat ngeen wóolu euh, pour mën a dundal seen njaboot hmm. instant bi nii nan nga koy dundee pour mën a dundal sa njaboot aussi ah lu metti comme ni ko gars yi di ndax li tam mbett na si ñëpp mhm. suñu baat la nam ak suñu musicien mhm. ñu ni woo si xew yi ñuy dem di géewi ci mhm. ndax tollagun benn ni fa boo ne tey ji nit dina la woo naan la million ngi nii wala léegi ndax man damaa nekk nit koo xam ne bu ma la géewulul fayoo ma mayoo ma munuma laa woo téléphone naan la jàppale ma si lee wala jàppale ma si lee man noonu laa yaroo du ma def loolu du ma dunguru kenn du ma ñëw kenn di la neex di la waxal loo xam ne newul seew waaw c'est vrai looloo tax sama géer tant que woo ma téléphone ma nàngam du ma woo loolu am na solo waa kay mais affaire moom metti na mais ñi ngi ñaan yàlla yàlla génn ko fi mhm. ban mën a àggale suñu yéene àggale suñu leneen ak leneen man yaakaar naa bu du woon mbas mi instant yi doom wax sax da ngaa suufi ah, kon ñu ngi lay ñu lay xaar mais léegi après single bi lan la ñuy xaaraat beneen single wala album la xaar album nu muy tudd doo ma ñu mosal album yi nu muy tudd. lu doy waar loolu loolu. Ah, après dinaa la jël orientel. jeex na moom ñooy ñooy gérer sax après lu bëri incha allah. mais nag da nga wax léegi waxtaan nañ yaay jàngal gars yu woy te man souvent fii face Paco boo jàngalee nit ñu woy wala nga wax benn affaire bi ma jaaxal dama lay jox micro na la woyal euh, Bébé Laye woyal ma balaa ngaa tàggatoo. ayi jarabile mama tulunte di jamani wali wala waaw. satika bombe yaña ñoña fa con sek wayna maria santal kinnalanga maro ɓana yoyom bote mam bote wawaw mawangayi o kalala ɗiyo ka banta seyo yusundur nena si ali cina njama lo fentemadul Amadou njaaraama njaaraama njaaraama loo fente Ousa Diallo nee na maam yàlla yaa wàcci mbëggeel moo di seytaane maam yàlla yaa wàcci nobel nobel moo di seytaane siri soona bi waaw waaw xale bu rafet soona be waaw waaw demee su demee ndeysaan su ma demee nga jooyoo waay. mais Bébé Laye Bébé Laye bi mu fii te ni nga koy tegee dafa dafa graaw man moom musique su ma la déggee nga woy rek du ma soxor dama lay wax direct li am. mais Bébé Laye balaa ngaa tàggatoo danga nga woy mbir mi xaw maa laal tuuti franchement parler Bébé Laye balaa ngaa jub ci plateau bi est-ce xam nga di nga woy di nga woy ki nga xam ne mooy Papa Ndeye Ndiaye borom Saalum woy Dakar live nga soog a tàggatoo nag. Dakar live lu def leen lu leen neex yéen a tey ba kenn laal leen ana papa nee na njaay ma way laay kon defal lu la neex yaa tey ndeysaan mbëggeel dafa neex amoo fayam ku la bëgg ba wax la ko doom yaay Dakar Live boo amee temps nga seeti ko ndeysaan mën bëgg naa laa ba seesi leen ngeen ni sama reeni xol laay bu beneen yoon na danaa fa ñëw papa ndeen njaay yaay garmi bàyyi garmi bu doom màggee du doon garmi gërël lay doon ah tey ma di la Dakar Live loo leen wone mu siiw man bëgg naa leen ba seesi leen ngeen ni sama doomi yaay boo waayi bu beneen yoon na tee danaa fa ñëw ndeysaan bébé laa yàlla nga lekk sa wërsëg ci musique bi amin amin ci xol euh, boo déggee nit mu woy moom Mm, di nga xam ne kii woykat la wala du woykat xam nga seen woy bi daa bari ay borom baat yoo xam ne xaw ma dañoo naan grésil xaw dañoo naan acide <laughs> man am na benn waay man sa woykat bi benn waay bu ma xam pompiteer xaw ma naaj même na benn waaye ma xam fii fii Pib de fii woykat la fii Pib de saa wooy nit ñi jooy mais macha allah euh, lu neex nag du doy euh, bébé laay lan ngay tàggatoo waa gërëm leen rek mhm. di kontaan ndax lii yombul déplacement ak dérangement yombul mhm. mais yàlla na yàlla yokk lépp. Mhm. ba li ngeen ni bëgg tamit ci Dakar Live yàlla yeggale leen. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi yàlla may ñu jàmm mbas mi tamit puus ñu mën a àggale suñu yéene ndax ñun amuñu loolu suñu waajur. li ma dugal si aar mooy samay waajur ngir teral leen. Mhm. kon dugguma si ngir xeex ngir xuloo ngir mhm. def leneen ak leneen. doomi bax daal laa doomi ñetti mbaar laa. doomi géejawaay laa kon man du ma ragal. waaye aar mu ànd ak yenn yi. waaw c'est vrai li tax mu ànd ak yenn yi géer yi boo si wiisewul du la bëgg bay ànd ak gërëm ñëpp rek di sant ñëpp. Mhm. di gërëm Matar ah. sama ménageur sama xarit. gentleman production ku baax. chéri siyaara di ko mhm. ñaanal jàmm bu baax a baax di gërëm sama jabar. waaw jabar yi si bokk bu loolu nag ñoom affaire yi neex ndax Saint-Valentin lañ jógee ah. daa muy mer a waaj takk ñaareel. Eh, loolu moom dama si débat mais yow aussi ñu ngi lay sant di la gërëm ah ci teewaay bi nga ñëw fekk suñu fii ci Dakar Live TV ñu waxtaanee sa carrière waaye waxtaanee ci xew-xewu jamono ah. Euh, kontaan nañ trop ah euh, ami internet Dakar live seen émission face à Paco la woon nag mais balaa maa tàggatoo dafa am message bu am solo bu may jàllale euh, te samay ay kilifa ñoo ma ko jox tey nam naa ko jàllale donc c'est bien aussi ma jàllale ko foofee ca Kaolack jumaa ji nekk ci benn quartier Sam donc ne nañ doomi Kaolack yi waaye doomu quartier Sam yi rawatina waa daara jeeg coof ak ñëpp nañu dem jàpp ci jumaa ji dañ koy tabaxan ah. euh, ku bëgg a participer mun nga woo euh, tonto Maud Sall moom mooy imam bi mun nga woote ci 77 555 99 79 77 555 99 79 ngeen jàpp ci jumaa Sam boobu nga xam ne euh, foofee ca Kaolack moom lañu am néegu yàlla la te ku ko def doo ko rëcc bonne volonté yi dëkk Sam def leen foofu mbir la dem leen ngeen participer ci ah mais aussi tamit di gërëm gars yëpp nga xam dañuy jàpp ci combat bi ah di gërëm tamit boo xam ne dañuy dox ci mbiru social mu nekk waa JBC joie pour le bien-être du cœur euh, ñu ngi lañu di jaar président bi Adam Badiane mais aussi euh, di jaar mon ami mon frère Ali Tëx Ali Ndiaye borom Kaolack maa ngi koy jaar maa ngi ziar sa waaja ah, mais di ziar gars yëpp nga xam ne jàpp nañ ah, ci affaire bi di wax ne Dakar live day dem gars yi nañ ci jàpp bu baax a baax mais tamit saay ngeen ñaanal samay cousine ah fële lañ nekk jaamu gën soo am ne amaguñ jëkkër te dañoo bëgg jëkkër salimata yal na leen yàlla may jëkkër ñaanal leen jàkkaarloo yëpp waaw ñu nga woy leen mi ngi noonu ah gars yi nag seen émission face à pakolo comme ni ma ko waxee léegi rek ah ñu ngi sant ñëpp di sant gars yi équipe technique bi Bokar PDG groupe Dakar live bi ñu ngi leen sant di leen gërëm Euh, nii rek la saa su nekk rek face à dañuy indi lu bees waxtaanee lu neex gis ngeen bébé laay nu mu ko defee bu beneen yoonatee tamit ñu indi keneen euh, connecté wu leen fii rek la amul feneen Dakar Live day dem kenn du ko téye c'était à la présentation doomi Kaolack bi la chéri de Saloum Papa Ndeena Ndiaye rang muy gaaw Paco la